asalaamaaleykum ami cher internet yéen mi safoo duñu bàyyi xel fii ci Equivox euh, TV saa su ne am mbégte ak contentement di leen dégtal euh, people du jour ba tey rek dañuy desandi ak faat bakkan bi nga xamante jot na am fële ca Pikine euh, Technopole léegi mot na ñaari semaine faatum bakkan kii di Abdoul Aziz Ba ñu gën koo xamee ci Aziz Dabala ak Wali ñoom ñooñu leen nag jotoon nañu woon a juróom ñaari nit yi nga xamante ne ni jamono ji nii caabi daf leen a euh, ginnaaw jot nañ ay information léegi suñu ay naataangoo yu nekk fële ca euh, Las TV ñoom nag nee nañu nag euh, d'après enquête bi nga xamante ne nii waa division investigation criminelle dig jot nañ koo def ñoom nag nee nañu jamono ji nii ki nga xamante ne ni moom mooy le présumé meurtrier moom nag avoué na ni ni moom moo rey ki nga xamante moom mooy Aziz ak Wali nee na wante moom ba muy def joojule meurtre dafa fekk mu dorogewu mu ne loolu sax moom moo gën a indi li nga xamante ne moom mooy euh, jàppante bi diggante moom ak Aziz tuddaale na si aussi li nga xamante ne ni moom mooy somu xaas bu toll somu cinq mille francs ci kanamu euh, enquêteurs yi moom nag euh, loolu la jot a wax information bi nag ñu ngi ko jëlee ci suñu ay naataangoo waa laas ba tax na nag jamono ji nii nee nañu enquêteurs yi ñoom ñoom nan nee nañu information bi nga xamante ne moom lañ mujjee jëlee ci enquêteurs yi mooy que ni euh, ki ne euh, moom moo faat moom nee na moom dong euh, moom moo faat ki nga xamante ne moom mooy Aziz waaye aussi faataale ki nga xamante ne ni moom mooy Waly ba tax na nag jamono ji nag d'après laas ñoom nee nañu ñii di waa ñoom nee nañu amuñu benn preuve complicité boo xamante ne ni mën nañ ko suspecté yeneen i nit ñi ba tax na ñoom jàpp nañ ni ki nga xamante ne ni moom mooy Nabou Leye dañ ko accusé euh, dong euh, ba ba tax na jamono jii nii gisaguñu benn preuve bi wane ni moom Nabou Leye euh, bokk na ci boobule meurtre loolu na nekk na information bi nga xamante ne nii waa ñoom ñoo ñu ko jox ñu ne mu ngi bàyyeekoo ci waa digg buñ ci dooree dañuy tàbbaat ci beneen mbir ki nga xamante ne moom mooy biisu ngóone gannaaw màggal bi dañ daan gis ni chaque année moom mooy defal tànt yi fële sa jannatu jamono ji na màggal gi ñu génn kenn gisu ko ci woon moom biisu ngóone nag génn na si silence expérience am bi nga xamante ne ni ci loolu la nekkoon ni ki barki démb bañ ko fekkee fële ca anniversaire euh, Mia Guissé ba moom nag bañ ko ca laajee nag nee na nag nit ku nekk euh, doo liggéey lu dul sa wërsëg mu ne ndax euh, yàgg na di liggéey li nga xamante ne nii moom mooy fële ca jànnatu di def ay baas mu nit ku nekk nag da ngay topp li nga xamante ne moom mooy sa yoon yooyu nekk kàddu yi nga xamante ne moom la bisu ngoone yëkkati jagleel ko suñu ay internet waaye aussi nañ ki nga mooy bàjjan te ñu gën koo ràññee woon ci série polygame moom nag yéen a yàbbi si jamono ji si sëy ji waaye aussi jël na cant ak ngërëm jagale ko ki nga xamante ne ni euh, moom mooy borom këram ndax nee na tey bu demee ba toll fii nii moom borom këram moom moo ko dooleel moom moo ko jàppaleel nee na xale jigéen ñi nañu gën a li nga xamante moom mooy seeni borom kër gën a fonkaat li nga xamante ni moom mooy seeni sëy ndax nee na moom bàjjen musul yennu li nga xamante moom mooy euh, ndamalu fay euh, ñibbi fi nga xamante ne moom mooy seen kër kàddu yooyu nag moom la bàjjen polygame yëkkati wa waaye gis nañu aussi ki nga xamante ne moom mooy Pendo Guissé gannaaw màggal gi bañ ko gis mu dugal benn photo ànd sa ki nga xamante ne moom mooy euh, borom këram ba tax na ñu bari ne est-ce pendoo Pendo euh, nekkul ni dafa sëyaat si diggante bi moom pendoo gisee nag euh, génn na tontu ñi nga xamante ne ñoom ñoo toogoon doon ko yàkkali li mel ni ni keteme moom Pendo gisee nag génn na seetal dara ndax nee na borom këram joojule mi ko takkoon ba tey benn borom kër boobu noonu moom la am nee na musul sëyaat musul tas ba muy dugaat ci beneen sëy mu ne borom këram joojule moom la nekk di sëyal ni ba tey ba tax na muy sàkku ko nit ñi nañu bàyyi dërëm bi nga xamante ne ni ah, ñu ngi koy ŋawte ŋawtee ci digg réew mi te nee nañ ko bàyyi mu sëy li nga xamante ne ni ah, moom mooy sëyam moom Abdou Aziz Ndiaye gannaaw ba ñu jotee ci ay rumeur comme que ni dafa may kër kii di yaayu Abdoul Aziz ba ñu gën koo xamee ci Aziz Dabala moom nag euh, Aziz Ndiaye na musul yëkkati kër may ko ki nga xamante ne moom mooy euh, waajur bu jigéen bu euh, Aziz bu Aziz Ba ñu gën koo xamee si turu Aziz Dabala kàddu yooyu nag yooyu la Aziz Ndiaye yëkkati ñu gis ni jamono jii nii am na ay influenceurs yu nekk ci TikTok bi di ketal li nga xamante ne ni moom mooy waa këru Abdoul Aziz Ba ñu bëri nag rafetlu. Euh, jooju les gestes yi nga xamante ne ni ñenn ñi ci ay influenceurs euh, nekkee fële ca bitim réew euh, ñu ngi koy def pour passer ne yeggali yéene bi nga xamante ne moom Abdoul Aziz Ba amoon na ko tabaxal waajuram bu jigéen li nga xamante ne ni moom mooy kër ni ki dee mën a gis nañ moom Kaliphone Sall génn dal ci kaw ki nga xamante ne moom mooy Arona Arona nañu gën koo ràññee si série kër brisé moom nag nee na jamono ji kii di acteur boobu la nekk ci biir série sëyam bi dafa tas nee na parce que ba waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne moom la Californie wax euh, moom nag nee na naka Arona dafa sàcc li nga xamante ne moom mooy ay yu euh, jabaram bu ci mel ni Mame Diarra te mu ne euh, moom mooy laayibam bu ko defee sénégalais yi dañuy dal ci kawam gis nañ ni aussi ni ki démb mu ngi doon def benn live sénégalais yi dugg ci di ci commentaire bañ ko laajee ne ko nag nga xam kañ ngay ñëw Sénégal mu ngi naan leen si biir kàddoom ne leen musuma jàpp sénégalais yi ba di leen bàyyi kàddu yooyu nag métti na nag ñu bëree bëri ndax ñoom jàppoon nañ ki nga xamante ne ni moom mooy jaara te mu nekkoon fi sëñ Petit Gallé ñu gën koo ràññee si jaar bu France ñoom jamono ji dañoo gis ni euh, dafa yëg boppam wala maam jaara moom euh, dafa defe ne ni euh, dootul ñëwati fii ci suñum réew ba tax na moom saa su nekk rek boo waxee dee na moom nekkul sénégalais parce que moom yorul nationalité bu Sénégal mais bu France moom boobu la yor lii nag lañ leen indiloon ci seen actualité people du jours den joxaat di daje rek ba suba incha allah